Popenguine 2023 ñu mën a xam ne depuis dem ba tey martyrs yi mooy les marcheurs ñu ngi waajal pour dem Popenguine naka tey jii ñu daal di génn depuis 6 heures du matin ci yoon bi naaj bu tàng bi ak coono gile ngir giseek Mariama loolu nag jaral leen ko lool waaye Leral TV toppal leen ko ba noppi tamit di leen won les temps forts yoo xamante ne xew na ci marché bi lee ultra aidés. Sainte Marie, Mère de Dieu, Amen. Je vous salue Marie. Pleine grâce, le Seigneur vous. êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La... que ses vêtements devenaient blancs de lumière. Puis ils virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus.

ziyaare eglise mère ñu daal di xam ne li ni mel lañ doon xaar coono gi nga xamante ne ñoom dañ ko doon yëg ci yoon gile day mel ni dañ koy daal di rocci émotion gi ñu daal di wone nga xam ne ñii kat coono gi ñu doon wone ci yoon gile giseetuñ ko te yëgatuñ ko Bissigé, Bissigé Diata. première fois d'être marcheuse et de venir jusqu'à Popenguine Si, si. Donc, je suis très contente, parce que c'est ma première fois ici à Popenguine. Donc j'ai trouvé beaucoup de jeunes. En je n'ai jamais vu ça. Donc je suis venue ici, c'est ma première année. Je vis une chose différente. Euh, depuis que tu es venue avec tu as enduré, Depuis que tu es là et tu as vu l'église, tu as vu Maria, qu'est-ce que tu as ressenti J'ai senti profondément l'amour, l'amour de Vierge Marie. Alors, euh, moi, je suis Charles Tiffen, je suis française. Je suis là au Sénégal euh, pour cette semaine pour un stage humanitaire de base, du coup à la Croix-Rouge. On a un partenariat euh, entre la France et la Croix-Rouge de Thiès. Donc on est venu en tant que secouriste au pèlerinage de base mais on a aussi marché euh, un peu avec eux ce matin pour dire de marquer le coup. Alors cette année, vous êtes des marchés, comme d'habitude, hein, donc comme tout le monde. Oui. Alors comment ça vous a fait pour la première fois euh, Alors déjà, pour nous, c'était dur vis-à-vis -vis de la chaleur. Après, je dirais euh, beaucoup d'émotions parce que c'était la première fois qu'on le faisait. C'était assez intense et ouais, rempli d'émotions. Euh, non, ça allait, il y avait plutôt une bonne ambiance et on marchait tous ensemble, il n'y a pas eu trop de difficultés, pas trop de malaise, tout se passait bien. Vous avez marché combien kilomètres Alors, euh, on a surtout eu des personnes qui avaient très mal aux pieds, <laughs> mais sinon, euh, on a dû voir un ou deux malaises, mais pas plus. Euh, après, on les rapatriait avec l'ambulance ou la voiture de la Croix-Rouge, donc ça allait. On n'a pas Et ouais, juste le bonheur de les voir arriver, de voir que ont réussi, ils, sont, depuis 5h du matin et je pense qu'on est heureuse pour, lui, d'avoir réussi. est vous allez marcher plus de 10 Ah c'est sûr, on relève le challenge de euh, l'année prochaine, On, est là et on y arrivera. une grande émotion parce que l'année dernière, je n'étais pas là. Donc aujourd'hui, le fait d'être présente ici, voilà, ça signifie beaucoup en fait. Espoir, moi, fait Andy, exposer suñu problème, la Vierge Marie. D'espérer nag nous exaucer ko de nous rendre témoignage. loolu en fait euh, pour man depuis suñu juddu la yàllaa ko def si ñun leeraay Yeesu moo ko def si ñun moo te tey ji ñun ñëpp ñu am espoir ñëw fii que ni heure bu ñu ñëwee suñu soxla dina faju que buñ fi ñëwee lépp lu ñu yaakaar si at at bi maman Marie dina ko exaucer. d'accord alors tey nga ñëw ci grotte bi grotte bi nga xamante ne moom moo tax ñu ne grotte grotte euh, Popenguine. Mhm. Euh, nga yëg ak lan bi euh, grotte d'après les histoires. grotte bi d'après les histoires fii la maman Marie apparaîtron l'année je me souviens pas mais rien que nga dugg si grotte rek émotion bi lay jàpp wala frisson yi ngay ressentir. c'est extraordinaire léegi beneen affaire la en fait leneen feneen la lay yóbbu c'est c'est ça daal joie bi lay animé yow tu peux même pas comprendre dès catholique bi ex-pope ngi li mu njëkk def mooy dugg biir grotte parce que xam nañ bu fi ñëwee aajum dina faju bu fi ñëwee li mu yaakaar ma maman Marie dina ko exaucer parce que bu dul dara mooy suñu yaay moo ñu fi teewal de ñu prudente te xam na ni pèlerinage moo ñu fi andi ñu yem ci pèlerinage yi bañ fi andi benn animosité comme quoi Euh, les fêtes ici par là nañu focus si si euh, pèlerinage bi te xam ne moo ñu fi indi ñu ja ñu jaamu ci yàlla jaamu ci Mama Marie delluwaat te xam ne bu ñu eggee suñu soxla dina faju merci beaucoup